àggale deusième partie bi rek ci waliyu latif ki nga xam ne day wuti liggéey wala mu am gàllankoor si liggéeyam bëgg ay liggéeyam doxaat mu ubbeeku wala loo xam ne ne mi ngi koy xëccoog nit bëgg bu ko sangoo rek bu demee loola lijjanti ko wala mu nekk ci dëkk bëgg dëkk boobu ubbeeku fa wërsëgam di dox na ko bind 310 euh, la koy bind yaa waliyu yaa cent 310 la koy bind bu paree nag nga bind surtout cent xuraysin quinze def ko saafara saafara boobu nag na ko denc juróom-ñaari fan bala mu ko utiliser wu na ko denc juróom-ñaari fan ba pare léegi juróom-ñaari fan yi bu ko dencee saabu xëyee day saraxee tàndarma miskit ak tàngal mentfrais yi xale yi di màcc benn bu nekk cent 175 booba bu juróom-ñaari fan yi matee mu doo a jël saafara di ko sangoo képp koo xam ne ne yaa ngi nekk bitim réew sax bëgg wàllu papier nga xam ne dalaa të boo defee sangat ba sangoo ko da nga ubbee ko si wàllu papier suñu borom da lay ubbi papier boo dugal suñu borom dana ko génnee boo nekkee Sénégal sa liggéey yàq doxatut boo ko defee sa entreprise commencé waat di dox bayra bi commencé waat xéewal commencé waa di dugg yaa wali yu yaa cent 310 nga koy bind li ilaa fi xore seen quinze def ko saafara léegi tàndarma mante fara tàngal ak euh, ki miskin moom ngay génnee nga saraxe ko incha benn bu nekk cent 175 danga ubbeeku ubbeeku goo xam ne ne dana yéeme lool boo koy sikkar nag bu la neexee waxtu julli woo julli nga sikkar ko 175 nga xam ne ne lim bu yéeme la si